c'est pour créer une capacité pour désengorger Dakar tout. Mais Paul Urbain, si on a dit que l'on a dit il a des qui ont dit, ils dit, dit que la liste des attributaires. Président de la République, 50 hectares. Ministre Sangam, 25 hectares. Ministre Sangam, 15 hectares. Gouverneur, tant hectares. C'est ce que Paul Urbain. Moi, je suis annulé nañu lépp récupéré nañ ko parce que duñu nangu alalu réew mi ñu koy séddoo dans ces conditions là kon dakaar a une grande capacité lim naa ci lu bëri munoon naa kon ne di ci wax ba fajar mais li ñu bëgg a xam rek mooy amaana li ñu war a def Dakar def ko à l'intérieur du pays buñ ko defee am na ñoo xam ne tey ñu ngi fii Ndakaaru ils vont faire mouvement vers l'intérêt du pays parce que la ñu bëgg avec le phosphate li nga bëgg pôle centre avec l'agriculture li ñu bëgg le pôle est avec pôle sud-est du moins avec l'or et yeneen yi li ñu bëgg pôle centre avec les hydrocarbures yenen ak les populations vont se déplacer Nous avons a une capitale qui répond aux normes de toutes les capitales mais pas une capitale qui xam ne ñetti oto bu ci dawee embouteillage am est programme pour Dakar am na yeneen yoo beaucoup parce qu'on sera là jusqu'à 3h du matin mais deuxième point que je veux aborder jeunesse du Sénégal particulièrement deuxième point que je veux aborder c'est le nationalisme dafa am idéologie bu ñuy nationalisme réew buñ ko mës a développé ba sori la may yàq ci réew moomu mooy ëpp li ci nous ne sommes pas des nationalistes nous sommes des patriotes xam ngeen lan mooy différence patriotisme ak nationalisme le patriotisme n'est pas exclusif patriotisme boddiwul kenn patriotisme newul diw dama lay dàq soril patriotisme dafa ne sama bopp la gënal tekkiwul ni dama laa bañ ñaaree yooyu bokkul réewu Sénégal jeunes yi lay waxal réewu Sénégal réew bu ubbeeku la réewu teranga la réewu tolérance la waye du réewu ostracisme du réewu bo xamné da ngay joxoñ l'autre indexé ko né mom moy la source de tous tes problèmes té tégo ko ci xam-xam ma wax leen lu gatt ci mbir mi ñi wax naan suñu problème guinéen yi la waye suñu problème libanais yi la biñu génné ñun kasso sama première conférence de presse dama leen ne teg leen wax yoy ci suuf booba jamono ñi ngi wax Amadou Ba sénégalais ab guinéen la man len Amadou Ba sénégalais la juddo fi yaro fi jangé fi liggéeyee fi exerce fi toutes les responsabilités sénégalais bu kacior la nak waye sénégalais la sénégalais bu kacior moy Amadou Ba waye ab sénégalais la motax affaire yoyu nañ ko bayyi ñoñu di wax Si vous avez des étrangers au étranger Sénégal man vais chiffres, jox chiffre des dama rek chiffre sénégalais étranger Sénégal vous avez Sénégal Je des chiffres concrets nga que le recensement ANSD population Sénégal dernier recensement 18 millions 126 mille habitants 18 millions 126 mille habitants étrangers ils font 207 791 soit 1,1 de la population sénégalaise moy statistique yi xam nga suñ leen né ñi mat nañu 3 millions newoon nañu population guinéenne bi mat nañu 3 millions té ñom ñep Amadou Ba lañuy ñuy votel xanaa kay 3 millions de Guinéens buñu ñu votoon Amadou Ba Bassirou diomay fay du dégg wiw yeen ñi seeni quartier 3 millions sur 18 millions xam ngeen lan la c'est un sixième ça veut dire juróom benn kër yo gis benn bi étranger la wara doon est-ce que fi Géejawaay juróom benn kër yu ne benn bi étranger moo ko moom c'est-à-dire nañu waxante dëgg te di wax lu yenu maanaa est-ce que Sénégal foo tourner peut-être ñu bëri ndakaaru la ñuy yem ndakaaru am na quelques étrangers demal Touba Mbacké demal Kaolack demal Guinguinéo demal Fouta di nga dox lu yàgg yàgg yàgg doo gis benn étranger donc, si vous avez des étrangers, des milliards au Sénégal, vous allez dire ce qu'on a. Nous, les Sénégalais, nous, les Sénégalais, nous sommes tous les Parce que nous utilisons des arguments qui savent qu'il ne peut pas les Sénégalais qui ont des problèmes. Nous devons faire attention. Est-ce que vous savez combien de Sénégalais ont des problèmes On a entre 750 000 et 900 000 Sénégalais qui sont hors du Sénégal.

kon am na loo xam ne buñ ko buñ ci soree ba sori yéen a ngi dégg France ñu naan extrême droite bu ñu xëyee dal ci africain yi wala étranger yi ne suñu malheur yëpp ci ñii la jóge suñuy mbokk di ko dund mu métti lool ñu xam ni ñenn ci ñoom bu ñu gañe woon boo moytul dañu leen di lem ak seen i bagage yu ñibbisi kon ñun bu ñu commettre les mêmes erreurs lenn moom dina am fii ci réew mi mooy dinañu contrôler kan moy dugg ci réew mi ak kan mo dugg genn ci réew mi dinañ ko contrôler ngeen déglu ma bax rek man lima yagg wax moy on doit appliquer la réciprocité man réew bo ne ma fay dem laju may laaj visa bala nga dugg Sénégal da nga wara am visa man lolou la te duma ko lam lamé mo xam France nga tuddu mo xam États-Unis mo xam budé bu may dem sa dëkk dina dem ra ambassade suba ak ngoon nga laaj ma xaliss lélé nga délo ma né ma joxuma la te té xaliss bi do ma ko kon yow boy ñew sama réew da nga wara fay visa loolu moy yoon muy ben ñaareel bi étranger yi nga xamné ñi ngi biir réew mi même ñi nga xamné c'est dans le cadre de la CDAO parce que xam ngeen ni dañu bokk espace bu tuddu nous mu am liberté d'aller et de venir au sein de la CDAO wayé war nañu mëna une am carte pour identifier qui kuy étranger bañu ñu xam ni étranger la ci biir réew mi Nationale. lu ñuy liggéey le assemblée nationale ñettel bi muy lu am solo moy état civil bi man nekkoon naa maire jàpp naa ay nit ci état civil ñuy def lu nonu mané ñi ne dama leni yobbu tribunal mais état civil bi problème yi ci wax jeex parce que amna programme bo xamné ñi ngi ci dernière phase bi def nañ ci 19 milliards pour la numérisation de tout l'état civil ba nga xamné ne dootul doon ben agent buy toog fi di génné ay papiers mais lepp dañ koy programmer sur ordinateur ba nga xamné kenn mënatul jaay kayit kenn loolu dinañ ko liggéey mais bu loolu wesso mais bu loolu wesso bu len kenn monter contre une quelconque communauté notre problème ne vient pas de telle communauté ou telle autre communauté communauté bu fi nek ñen ñi yag nañ fi ba sen ñi ngi seen troisième génération seeni doomaat ñoo fi

un peuple ouvert sur le monde, un peuple responsable, un peuple voyageur. Et quand tu voyages ailleurs, tu nga war a de accepter ñeneen ñëw fii ñetteel bi nga xam que tu bëgg toujours ci li féliciter l'équipe de campagne féliciter l'équipe de campagne Comment c'est ko par M. le directeur de campagne Fadilou Keïta et adjointe Jamila Diallo félicité Niger et sécurité Je dama que ngeen vous bu sécurité bi également ñi nga ñi te d'habitude moi, communication bi équipe digitale bi ak ñeneen ak ñeneen félicité ñi nga xam ne ñoo yor machine électorale bi te kenn xamu leen muy waa Senop ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax waaye ñi nga xam ne nag ñu leen di wooye les patriotes riders ñi yor seen moto dama bëgg ñoom it ngeen tàccul ma leen bu baax mais leader yi ñu àndal yëpp nag nga xam ne topp nañ ñu Sénégal yëpp. yor micro bi di neexal campagne bi di agrémenter discours yi ma ngi leen di féliciter di leen encourager ñoom it di wax patriote yépp nag di wax peuple sénégalais bi ni que rendez-vous bi rendez-vous démocratie la ça doit être une fête li ngeen ko defee yépp wane ngeen ni fête la fête bu mag fête boobu nag moom la ñu bëgg a continuer ba dimanche nous gagnons avec une majorité écrasante en valeur relative dañu une victoire qui xam dépasser 60 en valeur absolue nous avons un minimum 150 150 députés à l'Assemblée nationale dama nous ni le Sénégal partout li sénégalais yi won wax am kóolute ce nag du ñu nangu ko yak fête démocratie violence amu ci place ku wolu sa programme wolu sa xam-xam do utiliser violence motax limay wax Abdourahmane Diouf ñun nitu jàmm lañu mais vouloir la paix ne doit pas conduire à une faiblesse coupable la paix luñuy sam la lélé def guerre malgré lui parce que ni ñuy sàmmee jàmm moy lepp lu nar a yàq jàmm ñun ñep ñu and dal ci lolu jëlee ko fi kon liñu sénégalais wax pendant ces jours moy feddali nañu seen confiance ak seen kóolute ci ñun te gëm naa ni keroog le 17 lay gëna graw mais bi li ma bëgg a patriote yëpp moy nous faisons face encore à un système le système n'est pas encore mort système bobu

ils font tout pour renvoyer les gens dos à dos une partie de la société civile dañ daan dem ñu parce que le système est plus complexe que ce que vous avez pensé il faut qu'on en termine avec ce système par une victoire écrasante le soir du 17 novembre vous êtes prêts pour le faire demain leen jëri carte yi campagne 24 heures et